et puis derrière aussi on attendait ñëpp a ngi doon xaar discours Khalifa Ababacar Sall parce que nee nañ yëf yi foofu la euh, la de de de de votre plateforme avec euh, surtout jafe-jafe yooyu yëpp ñu recensé. waaw xam nga xam nga dafa am loo xamante ne damay dinaa ko alerter. am loo xamante ne ne dinaa ko euh, relativiser lu may relativiser mooy ñun fii lañ nekkoon en 2011. M23 bokkoon nañ ci leader M23 yi. moi j'étais le responsable national ñoo doon man maa nekkoon responsable national des jeunes bu réew bi Barthélémy Dias moo nekkoon responsable national des jeunes bu parti socialiste. Abdou moo nekkoon responsable des jeunes de l'APR. Bara Gueye moo nekkoon responsable ñu ngi woon nekkoon au pouvoir euh, ainsi donc ñun ñoo doon diriger mbir ñoo fa nekkoon. Euh, ba ñu organiser M23 première prise de parole amee jour yu njëkk bu ñu njëkkee organiser manifestation y avait des huées y avait parce que par exemple ku mel ni Idriss Seck nga xamante ne nekkul woon au pays nekkul woon Sénégal ñëwul woon jour M23 am na ñoo xamante il lui en voulait euh, ñu positionné woon njëkk ci M23 jàppoon nañ ne su ñëwee peut-être war nañ ko war a mën a ñu ko mën a xajal et cetera donc rivalité boobu dafa amoon il y a eu comme ni huées yi amee moo tax histoire il faut ñu jàpp aussi que ne à quelque mois d'élection les grands rassemblements yi am c'est des locomotives yooyu yóbbu nit ñi vers l'élection présidentielle donc parfois enjeu yi day tax ba ku si day bëgg wane sa bopp personne ne veut en wala da ngay bëgg a sa bopp parce que yow it candidat en même temps di nga bëgg a wane say nit di nga bëgg wane sa bopp di nga bëgg a wane wu au sein au niveau de l'opinion moo tax loolu talon d'Achille la par rapport ak rassemblement yi moo tax damay naan m neexoon na trop mais daanaka m atteindre objectif am ndax président Wade nekk na candidat Et, et pour cette fois peuple bi ñëw mujj est que xaj boobu du leen du leen foofu laa ñëw peuple bi moo mujj arbitré te ñoo xamante ne sax après ñu woon m ndax dem nañ defi campagne mhm. ñooy ñoo falu c'est président Macky Sall moo njëkk a génn. oui. voilà bien que moom il ba muy dem it bàyyi woon na fa ay nitam et cetera defoon na benn stratégie tout sax c'est pour dire que ne am na loo xamante ne amoon na fi moo tax je relativise. Mm-hmm. maintenant la où j'alerte mooy forme de contestation yi bokkul. Mm-hmm. léegi dañuy toll si politique foo xam ne dafa commencer di am ce qu'on appelle la haine. Mm. dafa commencer di am. façon xoolin bi ngay xoolee sa adversaire bi nga xamante ne daanaka lu ne mën na si am damay xool keroog manifestation bu njëkk bi nga xam ne Pape Djibril Fall demoon na fa. si otoom. du voilà mhm. c'est-à-dire que am na peut-être nu mu doon yéexee sax si doxin bu mu doon dox peut-être que musiba mënoon na am. Mhm. parce que la foule elle est folle. te gis nga organisation yu mel nii tu n'es pas à l'abri de l'infiltration moo il faut faire très attention di nga lii suñ ko fayul wala fexe xool nu koy fayee suba lu ne mën na am. Mhm. parce que leneen si am ku ne day jël matuwaayam. c'est te matuwaay su amee rek friction am rek lu ne mën na am. Mhm. te su boobaa ñeneen ñi mën nañu rey moo tax là où j'alerte mooy suñu fa ba am genre organisation yu mel nii képp ku taxaw di wax mhm. na waxal moromam. képp ku tefar di défendre na défendre moromam. képp ku si war a taxaw jàkkaarloo kii na jàkkaarloo mook ñeneen ñi ñoo far. Mm-hmm. parce que en réalité ànd bi c'est pour ñu far c'est pas pour ñu jëloo c'est pas pour ñu xuloo pour ñu ŋaañoo. d'accord. et sa si on le fait pas si on crée pas cette homogénéité de pensée. Mm-hmm. d'idées et de démarche luy nar a am. mooy ñun ñooy dóorante ay bopp suñu biir. d'accord et là c'est là où j'alerte parce que les formes de de contradiction yu am actuellement dafa jël benn niveau boo xamante ne waru ko jël ci démocratie parce que la démocratie dafa laaj différence dafa laaj diversité dafa laaj fu may daanalee mooy moom dama koy wax souvent gis nga 1974 euh, président Wade dafa tenté un peu élargir parce que looy mun a wax PDS créé woon nañ ko mu am euh, genre opposition de contribution mm-hmm. mais président Macky euh, Abdou Diouf ba mu ñëwee dafa def Euh, pluralité intégrale. c'est ça ne léegi ku bëgg a nodd na nodd. ku bëgg a nodd lu mu tekki woon mooy en dehors de ñun ñi nga xam ne ñooy parti au pouvoir mën na am ñeneen ñoo xam ne mën nañ jàkkaarloo ak ñun. ñeneen ça veut dire keneen. ñeneen ça veut dire si biir day am ay diversité d'ailleurs sax en terme d'idéologie da nga doon gis ñi nekk ay libéral ñi ay marxiste ñi ay léniniste ñi et cetera. donc ñu am lu ñu organiser wu damay naan dañu nar a sax ñun nekk ci recul démocratique ci côté boobu. parce que fii ma toll nii daanaka on a l'impression que ñu bëri toléré wuñu une diversité au sein de alors que cette diversité cette pluralité là. Mm-hmm. c'est une richesse. parce que dama koy wax souvent fii nii suñ fi tegoon ñett ndab yu wute. Mm-hmm. fii ginaar am fi fii jën am fi fii leneen am fi ndab bu si ne benn du si wéet parce que ku si ne am nga préférence. te loolu mooy démocratie. Mm-hmm.